doxantu ndànk euh, Papa daal di seet rek ki nga xam ne moom lañuy ñuy seet pour waxtaan ci wàllum ventilo voilà nos chers téléspectateurs de la 7TV comme ni ma leen ko waxee tout à l'heure nee naa leen euh, kon ko période bi ñu nekk dafa daal di tàng lool euh, donc li nga xam ne mooy ventilo jamono bi dafa daal di nekk à la mode ba tax na tey dama daal di seet suñu benn frère marocain donc du nom de Abdallah Abdoula Abdoul Latif Dédé donc moom nag ah, moo ngi jugee ah, ba Maroc donc euh, voilà ñëw fii Sénégal di daan dooleem di góorgóorlu bu baax a baax moom nag am na yeneen yi nga xam ne da koy jaay mais tey dañuy daal di focaliser wu rek euh, seulement ci li nga xam ne mooy ah, ventilo bi donc avant tout dañ koy daal di nuyu bàyyi ko mu présenté wu bu ko defee ñu gën a yaatal waxtaan bi Abdoulaye Latif nuyu nañu maa lay fay ça va madame na nga def. yaa ngi si jàmm bu baax sant yàlla euh, tàngaay bi. question eh, moom dafa tàng moom wax alors Abdou nga jóge ba Maroc daal di ñëw Sénégal depuis combien de temps yaa ngi Sénégal. ah depuis 2008 ah 2008 léegi presque 15 ans. 15 ans yaakaar naa wala ëpp na loolu sax. Euh, pourquoi ce choix nga jóge ba Maroc ñëw fii ci pour daan sa doole. ah dama ñëw xale bu ndaw la sax dama ñëw commencé liggéey ndànk-ndànk bu yàlla dogal commencé au au boutique commencé na liggéey. da ngay nekk ci benn business nga yokk ci benn business nga nekk ci neneen ko mais danay baax day baax incha allah. alors dañu faral di gis également suñuy ndaw euh, comme ñi nga xam ne euh, mës nañu dem Maroc euh, dañuy faral di gis suñuy ndaw di jóge Sénégal di dem Maroc pour daani seen doole surtout bu boo demee ba Casa am na marché bi nga xam ne ñu ngi koy woowee marché des Sénégalais. ma wala voilà ma dem nga foofu. j'ai beaucoup d'amis sénégalais ils sont là-bas dañuy baax dañuy liggéey boo demee foofu noonu yaakaar yaa ngi Sandaga xasaay ñu ngi foofu Kafi Touba da ngeen nekk boo soxla tamit ceeb bu jën sax da ngay foofu nga ko jënd waaw voilà. beaucoup de Sénégalais sénégali noonu c' macha allah mais c' est son frère. dugal Sénégal yi dem foofu mais relation bi dafa yàgg na. si moom yàgg na kenn mënu ko wax ban année quoi loolu yàgg na. depuis Hassan Diouf Mohamed Cinq bu léegi dugal Ablaye Wade Macky Sall keneen ak keneen yàlla mooy. ñun ay frère la quoi am amun ay frère africain quoi ñun ay ay mbokk lañ quoi wallahi d'accord cela veut dire que entre les Marocains et les Sénégalais c'est les frères ah parce que boo leen demee ci marché Médine bi euh, yéen ñi ngeen xam ne mos ngeen dem euh, euh, Maroc di gis ngeen sénégalais yi foofu ni ñu fay jaayee jaay lépp li nga xam ne day am Sénégal rek donc dañ koy daal di jaay foofu Maroc mais aussi boo ñëwee fii aussi lépp lu am Maroc rek dañ koy daal di jaay fii nii nga xam ne Sénégal comme les jàllaba et cetera. Ah, pour vous dire que les babouches et cetera pour vous dire que entre euh, les Marocains et les Sénégalais euh, benn lañ donc nag c'est la même chose ah donc tey dañuy daal di ñëw. doo xool sax yaa ngi ci bitim rek waaw yaa ngi ci sa dëkk. non macha allah suñu am problème Sénégal yi fii ak ñun ay am ñu mbokk ay voisins sénégalais ak marocains dañuy takkante si biir am nañu famille boo demee tamit wakkaam y a beaucoup de famille euh, jigéen yoo xam ne dañuy sëy ànd jëkkër ji ñëw fii étudiants tamit ils sont en pagaille ils sont à l'université euh, Anta Diop di médecine les gens yi fii médecine pharmacie ils sont macha allah mais les commerçants aussi Sandaga rue Mohamed V fii euh, Grand Yoff il y a beaucoup de gens aussi euh, sénégalais ils sont c'est macha allah daal di ñëw un peu ci li nga xam ne tey moo indi muy wàllum tàngaay bi est-ce que yaa ngi dund tàngaay bu oh fu mu nekk nii man problème chaleur bi moom xaw ma ne ma yóbbu aar démb sax laa wat fu mu nekk nii sama bopp bi dafa tàng jër la def. tàng jër ba nga wat. Oh, fu mu nekk nii c'est chaud macha allah mais dana baax mais boo tawee affaire bi day feex tuuti mais boo tawul moom day day day ñu gis ne période tàngaay bi euh, ñu bari dañuy daal di euh, wàccee conteneur u ventilo di jaay li nga xam ne mooy ventilo yow aussi fekk nañ la ngay jaay li nga xam ne mooy ventilo tey ventilo yi nga xam ne moom ngay jaay euh, gis nañu ne wute nañu. donc du même marque bi du même façon bi et cetera ah, yow ventilo yi fan nga koy jëlee fan lay jógee exactement. non ventilateur fu mu ne nii am na yoo xam ne jóge Chine Dubaï euh, Turquie il y a beaucoup de sociétés il y a société Astech société Smart aussi fait le ventilateur Solstar aussi le Sénégalais aussi est connu comme marque mais maintenant il y a de plusieurs de marques il y a Global Continental euh, hivernal il y a LB il beaucoup de marques qui sont bien mais Sénégal yi moom xam ni anciens yi xam ni hivernal rek la ñu xam mais mais il y beaucoup de marques qui sont bons qualité mais aussi ventilateur c'est entretien aussi loolu entretien rek. voilà parce surtout loolu bëggoon naa si ñëw après parce que des fois dañuy gis euh, ventilo nit jënd ko mu jékki saay ba si yàgg rek panne dootul doxati pourquoi lan mooy waral loolu marque bi mooy baax mooy ñàkk baax wala ventilo moo nekkul qualité. non c'est que ventilateur bi boo avec le chaleur. xam nga day jox la seen ngelaw bi ba pare spirit euh, poussière bi léegi ventilateur bu defee une semaine normalement ci boo ko ubbi ba pare ñu ko war a nettoyer defal tuuti huile huile bu cent franc xaw ma moom dina continuer entretien rek la ma koy def loolu. mais entretenir et cligner. waaw moteur bi day tàng aussi dafa chan euh, tàng aussi day lay jox euh, ngelaw bi aussi day spirit poussière bi aussi moteur bi day tàng. c' est obligatoire moom danay paan aussi huile day day lakk quoi. day dem ba dafay dem buy lakk. Chaque semaine, si je comprends bien. Chaque semaine, entretien. am na ñoo xam ne ventilateur euh, toute la journée day tàkk ak guddi tamit moom c'est moteur bi sax oh, day day tàng du noppalu yow xoolal oto boo ko dawalee 1000 kilomètres foofu war nga noppalu waaw affaire aussi machine la rek. donc yéen ñi ngeen xam ne da ngeen am problème ventilo à chaque fois même pas un an ngeen daal di changé li nga xam ne euh, mooy seen ventilo yi donc euh, de ngeen li euh, li mu wax moom nee na carrément ventilo bi il faut ngeen koy nettoyer de temps en temps donc di si dolli huile pour rek mu am longévité ah, ba tax na aussi dinañ ñëw ci li nga xam ne mooy différent types de ventilo yi nga xam ne actuellement dafa nekk à la mode parce que gis nañu ventilo léegi avant amul woon ventilo yu am télécommande mais léegi dafa daal di am ay ventilo yi nga xam ne dafa daal di am télécommande donc euh, lan nga ñu mën a wax ci ventilo yu am télécommande ak yu amul télécommande ban moo ci ëpp mucc ventilateur bu am commande tamit xam nga euh, dafa am catégorie quoi dafa am numéro 16 18 et 20 mais euh, fu ma nekk nii. vingt attends baal ma numéro 18 16 20 lan mooy différence catégorie quoi ku moteur quoi. bu gën a baax. ñu gën a baax mooy 20 moom day jox ngelaw. maanaam pour grand salle grand chambre yooyu mu mu gën a baax ko mais bu fekkee pour commande ak sans commande na am sax euh, bu mag mais sans commande ñuy def ci salle de conférence bu modèle boobu el bi bu mag boobu boobu yooyu du am commande mais yii am na ñoo xam ne même bu ndaw bu ndaw sax mën na am commande commande c'est pratique la quoi le système quoi mais loolu yàqul dara yàqul dara. yu am commande yi d'habitude duñ gaaw a yàq. non li ma la wax rek comme li ma la wax rek. entretien boo defee entretien comme climatiseur tamit comme oto oto tamit bu deful changé wul huile pendant deux mois wala tour bi dana am problème te gaaw a yàqu xam nga xam nga affaire bi day yàgg toute la journée toute la nuit bon bi day tàng waaw loolu bi ñu ñëwee fekk nañ sa apprenti yi kenn kuy monter li nga xam ne mooy ventilo bi donc si je comprends bien ventilo bi buy ñëw dañ koy détaché waa dañ koy démonter après yéen. yéen a koy euh, monté. fii lañ ko rassemblé fii lañ ko monté boy macha allah ñu ngi leen liggéey aussi loolu rek la démontable la loolu yëpp xam-xam la. donc démontable bi dañ koy démonté ba pare yéen ngeen monté ko parce que man musuma gis ko jënd monteel boppam. ah non fu mu nekk nii moom ci carton bi bu fekkee am na yoo xam ne client bu dafa yàkkamti wala day voyager le sori c'est obligatoire nga jox ko ba si carton bi ndax mën nga yàqu ci euh, ci yoon bi ko mais bu demee dafa am nitis boo xam ne pour montage c'est très facile par rapport ak ñun fii c'est obligatoire ñu monter échantillon mu ne ñu booy mën macha allah dañuy xarañ mën nañu monter sans problème. donc clients yi ban la ñuy gën a préféré bi nga xam ne euh, euh, dafa ànd ak notice am ñu monter seen bopp wala bi nga xam ne dañ leen koy monter ba. en général client yu yëpp dañuy yàkkamti neen jox ma bu ni si carton rek yóbbu. mais boo fekkee dañuy gis échantillon mu ne non di dafa yàgg nagam nagam dafa xawmaat jox ma bu ni si carton man bu ñu dem mais parfois sax dañu ko yóbbu ba kër ga mu woote nee na ah, lu def nagam mu ne ko waaye ñu monté la ko fii wala jëla bu ni si carton defal sa choix mais ku ak choix mais am na yoo xam ne son son pratique ñu ko monté macha allah. alors des fois dañuy gis ne aussi li nga xam ne mooy euh, ventulo prix dañu gën a yokku parce que avant ah boo amee 10 000 francs mën nga am sa bu mag. mais maintenant euh, dañuy gis ne ventilo yi dañuy gën a cher de jour en jour de 100000 astafurlah de 30000 25000 28000 qu'est-ce qui se passe lan moo waral loolu. loolu daal c'est le problème guerre bi ak diwaan bi ak leneen ak leneen quoi gis na problème russe yi tamit nu yu bëri dafa yokk. li ngeen yokk bari na. Ah, non à cause de diwaan transport tamit dafa yokk. transport pétrole bi dafa yokk c'est obligatoire ngay def euh, augmentation comme ça. mais loolu moom comme li nga waxoon avant ay 15000 10000 francs mën na am 21 tonnes mais maintenant 21 tonnes léegi monde boo xam ne benn 21 tonnes ngay am mais dafa am bëri catégorie et bëri qualité am nañu qualité tamit ay Astèche ay Solstar yooyu société moo moo mais day baax am na marque tamit euh, smart nay nouveau modèle tamit ventilateur comme li ma la waxoon rek comme catégorie dafa am 20 18 16 mu ne bu ndaw a bi par exemple comme bi bi dafa tuuti comme ni ko waxee comme Sadio Mané dafa ba nii nu tudd. gars yi ñu ko waxee Sadio Mané. yéen suñu <laughs> suñu champiyon d'Afrique ngeen tuddee. ku mu ne Bantilo bi xam nga di mën na tooñ noonu ñu ko waxe quoi. maanaam dafa am la leen di seetaan Sadio xoolal ñancoo bii lañ leen tuddee. <laughs> Tunguné Venturo bi lañ la tuddee donc euh, nee nañ bii mooy champion d'Afrique bi. dafa am doole. dafa am doole c'est très bon. ah ku ñu bu ñu tuddee Sadio moom warut a nekk lu lu ndaw. nekkul loo xam ne dañ ko xep wala dama ko jox loo xam ne eh, champion d'Afrique champion d'Afrique. Nianthiou <laughs> on te salue voilà donc euh, mi ngi noonu sa sa turandoo nii dégg naa noonu la amee doole donc Sadio Mané lañ ko daal di tuddee donc bii nii tey Sadio maane boo si ñëwee ñaata lay jar bii nii. Eh, par exemple bu piquet numéro 12 yooyu par exemple 12000 13000 bu 10 000 francs mais am na piste. na euh, mais bopp bu ndaw bi bopp bu ndaw bi numéro 10 entre 9000 euh, jusqu'à 8000. yow sa sa bi ne ma 8000 euh, francs sama caméraman ne 7000. mille mooy boo xam ne par exemple gis na référence bi numéro 12 la tu vois numéro 12 bi bopp yi mu gën a. am ay numéro par exemple bopp yi tolluwul moteur yi tolluwul. ah kon bii at bii tolluwul. ñoo toll. si am na yeneen yu gën a ndaw a ndaw tuuti man boo amee échantillon sax ma wala ko ni ma ko jeexal numéro 10 mu gën a yomb tuuti par exemple waaw bii bu jaree 8000 ba 10000 francs yi nga xam ne yu mag yi ñaata la war a mën a jar mag yi à partir moom da ngay am ventilateur 15000 20000 18000 jusqu'à 35000 45000 am na yoo xam ne beneen modèle tamit yi ñuy def sax ndox glace am na mel ni euh, clim bi comme clim mais comme clim la mais di ko def ay entre cinquante cinq soixante soixante dix soixante quinze. voilà nga dajale rek jënd clim gën ko euh, tamit dañuy am problème sax ak client boo ko jëlee nee na bii joxul comme clim fekk moom kooku wax yi dafa leer bii ventilateur portatif ventilateur portatif ak clim portatif ça fait deux climatiseur sax am naa ko fële moteur yi sax tolluwul beneen bi sax da ngay def ndox ak glace. mën naan nga yokk tuuti parfum pour mu jox la xeet bu ba kon genre diffuseur en même temps lay doon. portatif la ventilateur ventilateur la mais c'est négativateur mais bokkul ak ventilateur ak euh, climatiseur par exemple euh, pardon. léegi comme c'est-à-dire que fii ku am 5000 euh, francs mënoo am ventilo. non 5000 moom. xanaaw. waaw ah, à partir 8000 moom da ngay am ventilateur. 7000 sax mënoo am. waaw 7000 waaw léegi ñun cas social yi ñu jëm. yéen tàngaay bi yërëmooñ wax dëgg yàlla ñun ñun maa la bëgg sax jaay la sax vingt la trois mille tamit affaire bi nekkul ci sama loxo affaire bi ci mu muy jógee ak euh, en tout euh, important ventilo moom dafa daal di bokk dafa daal di nekk loo xam ne euh, dafa bokk ci dundu doomu aadama jamono bii parce que tàng na façon xeetu tàngaay boo xam ne mooy loolu donc bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy entretien bi tey boo garanti bi du moins tey boo jaayee nit ventilo mën na la mën nga ko garantie ñaata at. garantie moom wax dëgg loo xam ne day jaar ci courant moom mënu ko garantie. comme ni loolu mooy garantie essayer client bi gis muy dox nice good fine asalaamaaleykum loolu parce que ñun dañuy gis ñenn ñi nga xam ne bu ñu jaayee ventilo dañ la naan garantie nañu ko un an. ci wax bala rek mais garantie la xamal mooy garanti da ngay garantie oto boo xam ne da ngay génn ci service ne na garanti un an wala deux ans wala frigo wala télé. mais loo xam ne ventilateur vingt mille wala quinze mille ngay def garantie waaw moom tamit la comme li ma la wax rek entretien la rek loolu mooy jox la garantie yow waaw en tout cas euh, man donc euh, tey bëggoon nañu xam à part ventilo bii nii nga xam ne dafay génnee ngelaw ak ventilo bi nga xam ne da nga ciy daal di def li nga xam ne mooy un peu de parfum pour mu parfumer sa endroit bi nga koy def ak glace ak ndox euh, donc boobu di mel ni clim ak yeneen yan yeneen façon ventilo ñoo am que ventilo yi apparemment dafa mel ni dafa commencé bari. non ils sont man fii fu ma nekk nii presque est-ce que am na vingt cinq euh, modèles fii. ci biir vingt cinq modèles yu nekk si fii nii si entreprise bi. am nañu client yoo xam ne da lay wax jox ma marque bi mënoon nekk nga ñëw forcer ko beneen marque boo xam ne bëggu ko même boobu noonu ni nga ko proposé mu gën a baax boobu même client ku nekk ak ak choix am du ko forcer sa choix. te moom marque bi macha allah comme li ma la waxoon sànq première kii li ma la waxoon noonu bari na marque moom trop. dafa am catégorie tamit ak numéro ak référence ventilateur léegi comme nekkul benn marque quoi avant xam nga 1990 yooyu 2000 euh, yooyu benn hivernal rek Sénégal yëpp hivernal lañ xam. mooy bu weex bi nga xam ne lii day weex bi bu weex bi ancien modèle la quoi. xam naa bu baax xamul hivernal Momadou Mohamed ñoom ay xale lañu. waaw yooyu xale ñu war nañu koo xam de ay année 2000 yooyu yii est-ce que juddu sax kii. 2000 kër a juddoo ko. ki judduwul ay année 2000. Mohamed nga yow. est-ce que 2000 juddu nga. judduwul temps boobu xale bu papa juddu na 2000. yàgg naa toj def toj war na judd ay 1990. 90 non non non juddu 90 sama doom ji xale la. rëy la macha allah. Uh-huh. si see la moom fii Sénégal gi gën a kii 2000 2000 temps boobu hivernal mi hivernal temps boobu ay 15 mille. 14 000 sax mën naa am hivernal nii léegi moom ancien modèle bi léegi fu mu ne nii 30 boo fayoo 35 wala 32 500 du ko am. ku am mais dafa bëri euh, false deuxième qualité troisième quatrième. gars yi moyen cher euh, dañuy daal di ànd ak yow peut-être nga présenté ñu euh, ventilo yi nan la mel donc ginnaaw bi ñu jëlee montage yi après xam naa papa dina gën a jël ni ñu koy monté donc yow rek ñuy daal di accompagner rek ñu xool ventilo yi nga xam ne dafa wute avant ñuy daal di terminer ak yow. active euh, donc ñëw nañu euh, ci li nga xam ne mooy ventilo bi parce que ginnaaw si biir biñ génnee ci biti aussi fekk nañ fi ventilo yu bari donc présenter ñu un peu ventilo yi at lan mooy seen euh, différence. comme li nga waxoon sànq da nga may laaj hivernal hivernal xam nga hivernal deuxième qualité bi bi avec commande bi ay diggante 17 18 bu 15 000 bi mooy global air poids lourd bi la 18 pouces la. 180 la référence 180 par référence ñu ngi gars yi ñu ngi francs am na yoo xam ni ginnaawam global air boo xam ni 16 pouces boobu diggante 20 000 22 000 bu 20 000 comme marque li nga ma waxoon mooy marque Solstar avec hélice en fer dafa bëri position bu la neexee nga fixé ko un mur bu la neexee nga teg ko ci ci kaw table. bii mooy dem euh, si événement yi. salle de conférence maggal wala gammu wala et cetera wala mariage ñooñu ngi ko def. plafonnier. bii mooy yiy dem si plafond yi. dafa bëri marque am na Media LB Evernal plafonnier la position moom plafonnier rek la yor. léegi plafonnier yi ñaata lay jar d' habitude. plafonnier d'habitude ñu ngi trente cinq trente mille vingt sept mille vingt cinq mille. tu nga xam ne par événement la euh, ñaata lay jar d' am na yoo xam ne bu cent mille quatre vingt dix soixante quinze ko am ñu continue ci ñun jaww ok. donc Papa nañu daal di dem euh, ventilo yi des nañ ba léegi gis ngeen qualité ventilo yi mu leen woon bu nekk aussi euh, am nga looy servir bii du saajo maane bi wala ba tey bokk. Sadio Mané dafa bëri catégorie quoi. waaw Sadio Mané bële noir la woon xam nga bleu mais bii gris la. bii la dafa am 12 ak euh, ak 10 am na tamit méral yu tax ci ngir tamit mën nañu ko seen mën fële. moo nekk bële am na catégorie global air binaton hivernal dafa bëri yu marque mais am na tamit hivernage. un peu ci Sadio Mané bi Sadio Mané bii nii ak bi nga xam ne moom lañu ñu njëkkoon wane lan mooy différence bi. dafa am différence ci marque bi rek boobu Global Air bi comment s'appelle la euh, marque de Imilix c'est bon marque aussi. man moo gën entre bële Global Air bi Global moo ko ëpp moo ko ëppale doole wax dëgg yàlla bu fekkee dëgg-dëgg Global Air moo ko ëppale doole. d'accord alors euh, dañuy daal di doxantuwaat dem ba ci ventilo yu bari yi papa. donc voilà ñu daal di tëjee foofu benn yoon parce que gis nañ ne carrément ventilo comme ni ñuy naan ëpp jaay dafay euh, génnee ngelaw pour te ko que ventilo jamono bi dafa nekk à la mode grand B yéen a ngi ko gis mu garde ventilo woom di di di dem ah, donc bi ngi noonu alors euh, c'est un plaisir ginnaaw euh, nag tey bi ñu la seet euh, pour rek li nga xam ne mooy l'émission Goor Goorlu donc dañuy daal di la bàyyi nga wax sa dernier mot parce que ñun on est des confrères hein, entre rek li nga xam ne mooy les Marocains et les Sénégalais je suis avec un Marocain donc euh, voilà bi ma demee Maroc bëggoon naa tourner foofu euh, ci marché Médine bi Médina bi nga xam ne sénégalais ya fa nekkoon mais tey dama ñëwaat sama dëkk fekk fi benn Marocain pour vous dire que rek ñun ñëpp benn lañ donc voilà donc lan ngay wax si suñu dëkk bi naka nga gisee Sénégal déjà non Sénégal moom wax dëgg yàlla moom c'est si doux en français si mais en wolof dafa neex mais ñu mosul am problème ñun dañu nekk comme ay mbokk leen ñu na dëkkantoo bari na ay frère bari na ay xarit tamit Maroc Sénégal si pays frère pays frère la y a aucun problème macha allah ñu kontaan nañ ñu ngi gérer jëfal ñu dolli jàmm ak sutura bu bari macha allah ñu barkello am nañ yow depuis yaa ngi Sénégal. Est-ce que euh, Diem a une double nationalité, c'est-à-dire euh, nationalité sénégalaise Mes deux frères euh, sont partout à Bala Modjoktouri. Proposez moi que lolo, man ko man Sénégal Maroc man jarul c'est la même chose. Man bu ma rombo duma am visa duma am bi kon sin diganti si libre. Roi mo ko def ak c'est yenen président ancien président ak nouveau président, il y a aucun problème. Nous sommes santi Yalla, nous sommes payés de frères. Man mo dem maa nekk Maroc bu ma ñëw Sénégal man comme maa alhamdulilah. alors ñu daal di gis ne euh, Maroc vous avez un roi di Mohamed V euh, donc VI euh, papaam di Mohamed V moom. Ah, papaam Hassan II. Hassan donc moom mu nekk Mohamed VI donc voilà yéen ngeen am roi ñun ñoo am un président de la République monsieur Macky Sall alors naka nga gisee différence su gouvernement Sénégal at bi nga xam ne mooy marocain parce que apparemment Mohamed VI. Euh, Marocains yi dañ ko ragal ah c'est le roi mais euh, nañ ko trop pourquoi. du affaire ragal dañ ko respecté jox cër loolu kilifa kilifa dëkk kilifa dëkk dañ ko war a jox cër euh, comme li ko waxee quoi am na benn aaya ci Alxuraan mu ko dañ ko jox comme fii Sénégal tamit Macky Sall c'est le président Sénégal dañu ko war a jox cër ku nekk day àggale liggéeyam kii kii fii moom par élection la war sekam parité kenn ki ñëw remplacé ko mais fale moom royaume depuis nekkul tey wala suba loolu yàgg na euh, bu fekkee sama formation yi gën a baax moom ak euh, royaume euh, Bretagne si yàgg ni nag ñu ngi gën a yàgg mais yàlla baax na c'est moo gën a moo gën a baax ci naare quoi dëkk naare moom ñooy royaume moi je vois il a beaucoup fait pour le Maroc donc il a il a beaucoup travaillé parce que Maroc boo fa demee par rapport ak Sénégal développement bi du benn boo dëggee ñu ne sous développement Maroc la fekk baax ah, donc ñu daal di ñëw un peu euh, ci li nga wax mu nekk loo xam ne lu am important ci respect bi nga xam ne ah, donc euh, euh, citoyens yi dañ ko war a jox rek seen njiit ñoom dañu respecté li nga xam ne mooy seen roi ba bu ñu waxee rek dañu naan carrément marocains yi dañu ragal le roi alors que nous aussi nous les Sénégalais on doit respecter notre président qui est monsieur Macky Sall entre pour le moment il est le président ba 2024 xamuñu kuy doon président dañu war a donc yow situation yi nga xam ne euh, jot nga ko dund ci temps yee passé en juin euh, diggante euh, Sonko Macky donc élément Sonko yi wàcc si suuf élément Macky Sall yi donc mu nekk loo xam ne c'était très difficile yéen yi ngeen xam ne ay liggéeykat ngeen sax jaayoo leen ba phénomène boobu nan nga ko gisee woon en tan que étranger. ah non man bu bëggee ko wàllu étranger moom métti na comme tu travailles pas ñu nekk ci kër gi toute la journée baaxul sax ci dëkk boo fekkee lu ngay wax ni ngay laaj mën nga koo wax mais jarul yàq je suis pas d'accord ci côté boobu changement moom bu fekkee yàlla dugal yëpp dana am changement loolu yàlla ma koy dugal mais ñu ñaan yàlla rek fii Sénégal ñu am jàmm rek loolu laa ñaan yàlla rek mais euh, jàmm mooy la paix gis ne problème bi bu fekkee bëri na côté kii wala da ngay faral kii wala kii boobu amoon sens dëkk bi na avancé rek ku nekk na am li ko am rek yalla ñu ko sotar ñu dolli jàmm ak sutura ñu sant yàlla. merci beaucoup donc euh, di la wax c'est un plaisir ñu ñëw euh, fekk la sa place euh, tournée yow émission góor góorlu di la jaajëfal bu baax a baax di la bàyyi rek nga wax sa dernier mot tàggatoo ak téléspectateurs yi nuyu waa Maroc parce que góorgóorlu partout dans le monde dañ koy seetaan. Ah, donc sénégale yi nekk Maroc bi ñu demee dañu ne ñu góor góorlu 7TV donc nit ñi commencé nañu xàmmee bi ma ñëwee aussi sa boutique sa ñi nga xam ne ñoo fi nekk nee nañ ma kii naa de la série Njabar donc donc nit ñi commencé nañu xàmmee. Ah, donc dañuy day bàyyi rek nga daal di tàggatoo téléspectateurs yi lay seetaan. waaw maa ngi sant yàlla maa lay nuyu waa sama mbokk sénégalais mbokk Maroc waa Maroc yëpp ñu sant yàlla maa lay nuyu leen yëpp maa lay gërëm maa lay sant kon bonne chance et faut continuer. yàlla baax na jërëjëf je suis content. merci beaucoup on est content aussi euh, bonne chance à vous également euh, donc c' est un plaisir ñu daal di ñëw fekk un frère marocain euh, ci biir euh, rek li nga xam ne mooy place am euh, merci pour l' accueil parce que il nous a bien accueilli wax na ak ñun aussi si li nga xam ne ci lay yëngu yemul rek ci jaay li nga xam ne mooy ventilo mais ñun tey ventilo moo ñu intéressé woon ginnaaw bu gisee ne dafa tàng torop Ah, donc di ko jaajëfal di jaajëfal également ñi fi nekkal yëpp mais aussi ah, di jaajëfal jëfal ah, sama caméraman di papa tey papa laa àndal sama doom ji ak Mohamed sama ñaari doom yi Cheikh je te fais un gros coucou xam naa mercredi prochain ñooy ànd di jaajëfal également ki nga xam ne mooy sama monteur sama doom ji góor a loo monté wul rek baaxut émission bi bu rafetee nee naa leen moo ko monté waaye bu rafetee tamit papa wa ko filmé di jaajëfal téléspectateurs yi nga xam ne dañuy seetaan rek góorgóorlu di ñu woo un peu partout dans le monde leen jox di daje Inch'Allah, ba mercredi prochain. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine, Inch'Allah.